sëñ bi wax rek euh, mooy fu mu toll rek war ngay wax rabbi zidni ilma kon rabbi zidni ilma yow suñu borom doole ñu xam-xam. xam-xam bu waxee ak ak moom baati na. Hmm. li ñu jub lépp xam-xam la. fes dell ak i leer. Hmm. waaw fes dell ak i leer. xam ne mën nañu koo dundee bu baax a baax a baax a baax a baax. Hmm. Euh, li fekk ñu ngi li fekk ñu ngi ci lii moom duñ dee dañuy dund incha allah loolu mooy jotaay yii nii sëñ bi daf ko daan a baax a baax a baax léeg-léegi ñaar dañuy seen teeg ñoom léegi seen waxtaan ak seen seen moom dañuy mos mos yi solo waaye bu ñu gën a xumb rek di gën a am solo daal ndax daf ci am ay yoo xam ne ci la ñuy yeewaat seen himma ñu doon delloo ci seen biir la ñuy dundalaatee lu dee loo xam ne dafa waroon a dund ci jotaay bi daf koy dundal daf koy suutal daf koy màggal jotaay yu am solo la di jotaayu seen borom di xadaratu rahmaniya xadara boo xadara xadara boo xam ne boo di teewee yàlla ngay fàttaliku moom ngay yëg moom ngay dund ba keroog ngay delluwaat boo delluwaatee sa kër loolu dafay topp xaal boobu boo fi jóge woon guddi loola daf lay topp bu fekkee ne sàggaroo ba génn yalawal mbedd mi hectare yi beeg comme mbay yeeg mbay yi ba dàq loola ama ngay am sa kër moom loolu daf lay topp booy àgg mën ngaa naan yu dul génn jotaay yu am solo la yoo xam ne eh, yàlla defee ñu góob ci leer bu am solo mën nañ koo sàmm diirub la ñuy delluwaat ci suñu kër. la ko may diirub mbedd mi seen naan duñ ci bàyyi dara ngelaw yi danañ buutaan bay yóbbu ñu ba def. su borom day ko mag ku kawe ku rëy ku ko koo xam ne jaamu ko rek moo ñu war jaamu ko rek ci la suñu mucc nekk sàbbal ko ci la suñu gindi ku nekk li yàlla liy suuxat ruuxu doomu aadama li ngeen ko waxee yéen ñëpp mooy zikrullahi zikrullahi li sëñ bi wax ci discours boobee rañaan bi di na nga def zikru laahi muy daaba wax ngir dem sama kon zikr mooy daaba doo xam ne murit bi bu ci waree dana dem li ñu ciy boole rek mooy teew nekk teew lu teg bu ko defee suñu borom bu dikkee fekk la fa tëbb la bu baree baree baree baree mm-hmm. suñu ku màgg la kon ni ñu xam ne. daje fii tey ku ci nekk ci ñun aalam bu dox ab aalam la boo xam ne suñ boroom ay bindeef yi bindeef yi bindeef la dajale ci sa ñun te ñëpp dañ koy sàmmale ak jàmm garab ga ak la ca nekk ci ay moomeel suñ boroom ñëpp la jën bi garab yi wax ma koy lam fa dëxëñ ci ay xeeti bi ndef yoo xam ne yii gis nga leen yii gisoo leen garab gay joxe meññant léegi na la meññant ma ak la nekk ci biir meññant ba di ay xeeti mbindeef yoo xam ne da nga ko a xewloo yooyu ak la ñuy liggéey ci sa ñu ngi nekk seen waay bu jàmm seen lool du ko sàmbaal yàlla dañ mooy jàngale màggam gi mag nga xam ne dund rek nga war ci ko bu fekkee ne bëggoo dee mboolem ñu seq fii seen yitte jëpp mooy rey la ba nga dee bett sëñ bi daf doon wax lu am solo dee dëggantaan maanaam mooy ñàkk a jëfe ndigal wala wàññi nag foofu la dee dëggantaan nekk boo doon dund leeru suñu borom ba jóge fii nee da ngaa tuxalu rek da ngaa jëm ci jóge ci bari bay jëmee borom waaye dee dëggantaan mooy koo xam ne xañ na la yàlla ko mooy ki la bay ba nga jeex ñett ndax fan ak dund nekk boo ko bàyyi da ngay fàtt yàlla lu nekk lañu ñu koy jàngalee ngir suñuy xel man di xalaat ci li mu bind ngir ñu yokk jëm ci moom ngir suñuy xol mën ko bëgg mën ko jëfal ci mboolem ci yëpp ngir suñu groupe mën a dolli ko dund ci leeram ndax loolu moo nekkoon suñu dund bu nekk suy mu ne sëñ bi jàngalee nañ ko aji kawe ji aji màgg ji dégg nga moom lii moom moom laa ku kawe la ku yëkkatiku la moo bind nii lii moom amaloon amalatu ko moo defoon lii moo defoon laa sa borom boobu yéen ñaar képp la woon ci njëlbeen yaa ngi ba foofu ba léegi du dañ di xalaat ci yow ba léegi mi ngi lay ci amal ci yow ku neex bëgg koo xam ne loo xam mosut a jug ci yow benn ana nan la xel di xalaatee di ko war ginnaaw léegi loo fi laal rek ak moom moom ak moom yi la sa jëmmi bopp ji la nga jëg bànneex loolu ci taw fii xam nga ko yéegee ci dimbalam nga ko yéegee ci mbaax xam nga di ko yéegee ci yërmande nga ko yéegee te mooy jox loolu bàyyi bu la benn yoon ak loo ko war wan ginnaaw téewu sax day daw bi toppat si yow dina woo ci yërmande ak yéegee laa tax na tuuti rahmatillah alaysa allahu bi kaafin abda waaye ndax yàlla doyul comme ni ñu suñ ci yoon ndax yàlla doyul ah yow jàmm bi ndax yàlla doyul la sëkk ah an laa ta'budu sheytaan bu leen jaamu sheytaan yi noonu la ko waxee ci bakkan jàmm bi ñooñu yàlla li joxe ne bu leen jokk moo bind leer bind lëndëm moom ñaar yëpp dund loola ci leer na xam fan ak foofu ngay fekk mursalina yi ñu nekkoon ci discours bi day lu am solo daf lay gis nga nem naan la mursalina ak lambiya yaay ni liñ daj ci jaam yaa yaa ngi koy dégg liñ yàlla jaam yaa ngi koy dégg as mu gën amoon pour as mu nga jël ko nga dem vraiment ci noonu la liñ yàlla jaam loolu yaa ngi koy dégg wàcc ci sëriñ bi la ko yàlla jaam loolu ndax yow yàlla jaral na la loolu montaane boo ko fi waree ginnaaw danga topp loolu teg fitna yoo xam ne da nga koy jàmm ci force bakkan rek ñu ngi war ci moom di ko jàmm nga xam ne tey am na ci yoo xam ne seen bakkan di ko jàmm sax di ko topp jaral ñu leen sax ñu signé contrat boo xam ne dañuy fanaanee di liggéey ngir lan am alal am ay kër am ay nangam loolu seen bakkan la ñu wax dañuy fanaanee liggéey guddi bépp dañuy taxaw di liggéey ak ñoom dañuy sax taxaw taxaw ak ñoom si dañuy toog li may wax nii xam naa si am dina ko xam ngay lên càng ăn ngủ nó đi trâu đi nhấp đứng chỗ vậy cái ăn đi là cái ăn nào theo hả nhìn dòng ơi rồi anh yêu với quốc sự đó là ông solo đi lan moo tax kon yàlla jëru ñu loolu lần loolu nay loolu lañ nay lan moo waral lan yàlla jëru ñu loolu yow ñaare da ngay gis koo xam ne dundam képp daf koy def ci bakkan ak bànneex ak adduna ak seytaane ñaari ràkkaa rek bu ko julloon mu taw yàlla jéglu lu waral loolu ah ñee ñoo ko jekk alukal alukal bi duñ koy jekk dañ ko kóor fan dóor ko mot ko xëlëb ko def ko lépp dégg nga daal di koy rey ba mu dee wet bëgg koo aaj mu xew ko ñun ñëpp daanaka bu ñu tolloon bu sedd ku boobu di ko génn bu ñu tolloon bu sedd gi dee lañu def dee wet alhamdulilah bañ dajeeg bu mel na moom ci doole boo xam ak kàttanam ak leer bu bari mu gis bu suñuy xol ak suñuy xel man ñu mën a dund dëgg dëgg dëggantaan dund ndax suñuy mucc bëgg yàlla topp ko jaww mooy suñu soppe nag maanaam ci la woon yàlla kooku sa xarit la daal man ko seen ki suñu xarit la nii maanaam xarit dëggantaan mooy ko seen nga xam ne xarit présental mooy mooy mooy sëñ bi waaw boo dee jàpp ab xarit xarit xarit bu ma sëñ ab xarit jàppal na ko waaw moom laa ko def gars yi nga ñëw ay ca demal ci sa soppe bi yéen ñaar la daal ñu ngi lay woo ci yërmande te dina ko xaare demal wuy demal wuy ah keneen ku dul moom boo demee laaj ko ñaari yu ñett gis nga wëri ke dana lamb wala wala mu naan bi nga ñëwati de waaw hmm. ah. yàlla mooy ku bari la bari jeexal te ñëpp mën a am ci moom ak cër hmm. nañ maytu bu baax a baax a baax a baax lii muy boolee ko muy bakkan nii sax suñuy fëgg moom na tëddañ ko nañ ko maytu bu baax waaw ah. nañ ko maytu bu baax bi soññi ci ay yoon doo bakkan waaye ruula doo kii waaye ruula te lu bakkan masdaram lépp lëndëm la comme ni ko seen kii waxee masdaram lépp lëndëm la am fukki muy dàmbal li am solo mooy nañ ci góorgóorlu jàppal ci ndigal yi zikru yi fonk suñ jataay yii nañ bëggante li yàlla jataay yii am solo de gis nga ñun ñu ngi biir ñi bëggante ngir yàlla waaw man fi mu toll nii am mbëggeel képp laa yëg ci yéen laa wax mbëggeel waaw bu sori ci man laa yëg dañoo mën li nga xam ne moom maa ngi wax si si si si si si waaye loolu ñëpp laa koy maanaam yàlla da ngeen ko am. yàlla da ngeen ko am waaye da ngeen koy am rek loolu am am incha allah. yàlla buñ ko génn yàlla buñ ko génn yàlla buñ ko génn buñ génn di fàttali الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده